salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér sëriñ Sidi Mbacke xalifatu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ak mboolem njabootu Cheikh Abdoul at Mbacke gépp ñoo leen di yëgal wàcc liggéeyu sëriñ Mewndu Jaxate sëriñ Mewndu Jaxate nekkoon chef de village bu Touba wàcc na ab liggéey tey jii danañ ko denc tey ñaanal ko tey